deux secondes deux li ma wax ci RTS parce que dañoo wax léegi bu CNRA ma wax ko ci RTS RTS sénégalais ñoo ko moom xam ngeen ñi fi nekk yëpp média privé ngeen waaye ñu ngeen nekk nekk nekk média privé charte bi leen engage bi leen jox yéen habilitation pour ngeen mën a exercer dafa ne. nii ak nii ak nii ngeen war a defee bokk na ci da ngeen war a tolloole Sénégalais yëpp informé juste et moo tax ngeen nekk fii donte am na ñoo xam ne ci yéen ñi moom seen i organe de presse peut-être nguur gi la gën a jege peut-être que opposition la ñu gën a jege waaye ñi ngi fii tey parce que information la waaye RTS anamu fi new fi te li RTS di. di di di am jóge ci ñun moo ëpp foofu parce que am ngeen subvention peut def mais lu tuuti la li ci des yeneen débris mais RTS 100 pour cent de son budget ñu ñoo koy jox suñu impôt ba pare mu lànk ne du couvrir activité opposition te mën a xëy suba ba guddi am Macky Sall andi loolu ngeen fa ne yoon te charte réew mi ne ko da war a moom lañ ko gën a imposer que a privé yi sax la la pluralité dans l'accès aux médias publics loolu principe la de droit du ngeen gis Ousmane Sonko wala Malick Gakou wala Khalifa Sall à la lu dul ñu ne campagne électorale jot loolu est la kon loolu il mu jeex il faut que ñu ubbi RTS am na émission publique plurielle defe naa boobu yoon la chaque 15 jours ñu ci opposition comme fi invité ko pouvoir ñaareel bi mooy CNRA nga xam ne ñoom it dañoo féete ñëpp xam nañu balaa ñu mën a dénoncer rek ku concerné opposition la waaye CNRA nee nañu ñi nga xam ne journaliste lañu te engagé politiquement ba ñenn yi sax nekk ci candidat amatuñu sañ-sañu dem taxaw ci seen i organe de presse wax ak Sénégal waaw RTS ku ko jiite moom lan la. du candidat la candidat la pour nekk maire ba pare war a jiite RTS est-ce que kooku mën nañu tolloo la ñun ñëpp kon kooku dafa dañ ko war a démi démissionné dañ ko war a teggi foofu mu nekk noonu teg fa quelqu'un de neutre comme niñ ko réclamé ci euh, euh, Sénat nga xam ne ñi fa nekk ñoo fa nekk 2012 ba léegi te mosuñoo organiser élection correctement retraité nañu d'abord en tant que fonctionnaire waaye seen mandat jeex na depuis mai 2011 ngeen foog ñoo ñooñu dinañu def lu naqari Macky Sall kon loolu mooy poñ bu mujj bi ñu fi war wax ñu leen gërëm leen